gàmmu gi moom day ndigal loo xam ne naka jekk ñun dañ koy ànd ak xalif général des Mourides Serigne Saliou Mbacké àggoon na ci wax ñu ne li ngeen di def ci màggal moom laa jàpp muy sama gàmmu loolu kon wane na ne liggéey la boo xam ne naka jekk bi daara ji sosoo ba tey da koy ànd ak képp koo xam ne yaa fi nekkal sëñ Touba mu di ko defee si sa ët ak sa wet di ko ànd kook yow loolu itam mooy li nga xam ne moo ñu indi fii mooy Cheikh Mamadou Mountakha kenn ku ne xam li ëpp ci ay activité am fii la koy defee ci kër Cheikhul Khadim gi loolu gis ngeen niñ ko àndeek moom ci weeru koor bi ànd kook moom ci weeru muharam bi noonu itam la joxe ndigal ci weeru gàmmu gi ñu ñëw fii ànd kook moom ci njàngum xasida ak alxuraan ak bernde ni nga xam noonu la ko sëñ bi santaane waajtaay bi it yaakaar naa gisal ngeen ko seen bopp leen lu si nekk daal moom yaakaar naa ne buñ eh, noppi na dafa am nu ñuy liggéeyee moo ñun at mi moom dañ koy séddale ay programme yii jëm ci waajal màggal gi lii jëm ci waajal gàmmu gi ba nga xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci bernde ak taxaw ay gan ci weeru màggal dañ koy laf waaye dañ koy boolewaale daanaka ak gàmmo gi nga xam ne bu ñu génnee màggal rek semaine ba ca tegu dañuy xool fi ñu toll ci gàmmo gi li ci des ay mottali ñu mottali ko yaakaar naa loolu itam euh, gis ngeen ko barab bu ne ñu ngi fay installé loo xam ne dana tax bu mbokki julli ci ñëwee lu bokkul ak ni nga xam ne noonu la ñuy jàngee alxuraan jàng xasaayit dana leen taxawu ci li sëñ Tuubaa ne képp koo xam ne dog nga ci aw ñam fa man taxa man haya ali man lahu qad xara mu bajjilan fa xaba xayraati ahlil himmami wax ne képp koo xam ne waajal nga ci ay ñam jox ko ña nga xam ne ñooy dundal guddi gi nee na dajale nga yiw yi nga xam ne gaa ñu baax ñaamoon amoon te ñu ngi ko doon wut kon ñun lépp loo xam ne dafa jëm ci diggante euh, bi sukkarin aw laa xam yaa ko waxal sa bopp ci diggante ndawal wala lépp loo xam ne lu ñuy naan la lu am suukar la loolu itam yaakaar naa ne dafa bokkoon ci suñu programme at mi euh, moo tax lépp itam jekk na ba nga xam ne képp ku fi ñëw yaakaar naa nañ taxaw incha allah. loolu moom euh, sëñ Tuba moo mel noonu sëñ Tuba tànkam mbiram amul tànki ginnaaw waaye kii nag li ko tax mu gën a toll fii moom daf ñu xamal ni kenn la ci ñun ba ñu njëkkee dem ci ñoom lam njëkk wax mooy sant naa sëñ Touba ci li nga xam ne tey jii moom am naa yàqin ne ci yéen la bokk kon yaakaar naa looloo tax euh, fii fu ko yemale rek euh, weesu nañ ko àggoon na ci wax ne fépp fu ngeen ko jàpp defee ko fa doon seen daara jël ma ñëw yéen kon yaakaar naa looloo tax bu ñëwee nag ànd koog moom fii duñ duñ ko duñ ko yemale fenn loolu moo tax lépp loo xam ne dinañ ko def ngir mu taaru gën a tegu ci yoon gën a jekk euh, duñ ci duñ ci bàyyi dara lenn lu si dinañ ko taxaw incha